qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru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 di ñaan suñ borom subhanahu wa taala defal nu àddina ak alaxira ci barke alquran karim di santaat suñ borom moolaana tabaraka wa taala baax nu may ñu ci jataay bi fas yéene def ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def ci sunu émission bii di euh, nisaa il muslimaati li nasihati al muminina doon jataay boo xam ne non koy amale fii ci ëtt bii di ëttu M-Media Group Nourou Darayni mu mel ni jataay bi passé noo ngi ci euh, sara xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon des na ko takk ngir ñant ñante mooy des na ko takk ngir askan wu baax des na ko takk ngir alal des na ko takk ngir taar des na ko takk ngir diine mu mel ne xadis boobu la doon sara sara gi nag ñu andi ci ay woy yoo xam ne woy nan ko at yu at yu xaw a bari ci ginnaaw lu a toll fukki at ci ginnaaw wala sax mu ëpp ko ñu doon indi euh, borom diine mooy kan bu doon misaal misaal ci loolu ñu doon wax ci ki nga xam ne dafa nam wuti jigéen ju baax ji nga xam ne moom la alquran wax euh, ci junjub alquran wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi xabusa la yaxruju illa nakida naka noonu woy wax xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wax na ko al ummu madrasatun jigéen l'école la naka noonu arab bi tam wax ko ci xasdan bi gu tudd al ilmu wal axlaaq al ummu madrasatun isa aadataha aadat aadata shu'ban mu mel ni jigéen lu ama am solo la waaye lu jara yittewoo la waaye lu jara xam la ay jigéen itam war a xam boppam war a xam dëgg-dëgg moom dayo bi ko suñu borom subhanahu wa taala jox euh, maqaama yim ko jox wàccuwaay yim ko teg wuuteeg nag jamono yu jëkk yéen ña nga xam ne lenn ci ñu réer ña noonu lañu jàppe jigéen ñëw ci ci fànn yu bari ci yi nga xam ne moom passé ñu dikk ba ci melokaani jigéen ba ci digg digg jigéen ju baax ji nga xam ne moom la alquran karim junju yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam junju ko waroom xam-xam yi junju ko ci seeni bind nag noonu Sëriñ Tuubaa itam indi ci lu baree bari ñaan ko ci ay mbindam ci mel ni ko wasaw jatan saalihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'inu ak yeneen ak yeneen ba ci bind téere boo xam ne daf ko jagleel soxna Penda Diop di soxnaas bay taxam mu jagleel ko jigéen ju baax mu wax mu wax ko melokaani jigéen ju baax dëgg-dëgg naka lay mel kon jigéen ju baax yàgg naa yitteel lislaam yàgg naa yitteel ñooñ lislaam waaye yàgg naa yitteel koo xam ne ku baax la moom nag ci lañ nekkoon ci sunu jotaay bi passé di xam ne melokaanu jigéen ju baax mooy kan jigéen ji nga xam ne boo ko takkee man nga ca am njaboot goo xam ne njaboot gu baax lay doon ku teg ci siraatal mustaqima nga xam ne doo ko bàyyi ba nga xam ne doom ji di juddu nga bëgg koo yar waaye fi ngay commencé yar bi mooy nga tànnal ko wajur bu baax ndax bu dikkee rek neex a jubante comme noonu ko alquran karim junjëwoon waxoon nan ne alquran karim def junju jigéen ju baax xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itam junjunu jigéen bu baax seexul xadim junjunu ko ci ay bayit waaye bi junjunu ko ci téere boobu nga xam ne moom lañu tudd léegi di wasiyatu soxna Penda Diop xañ na du ñàkk benn bis incha allah taala ñu dikk ci moo taxoon ñu waxoon ca woy wa waxoon nañ ko quran dañu junj ko baax xadis itam juñ jukku baax seexul xadim juñ jukku baax ñoo fi digle lépp lu baax waxoon na itam soo dee euh, soo dee siinu doom ju baax jëfal ci sëy lu baax jëfal lu baax ci sëy ndax yàlla may la doom ju baax moo ko digle ci sëy bu baax euh, waxoon naa ci jata bi paas itam jigéen bu dee xeesal du baax ay melokaan yoo xam ne dañ koo taamu ci jigéen waaye itam euh, gëm sa bopp ni nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa wax ne euh, walaysa yujibu sawadul jismi safahatal fata wa su al fahmi ñuuluk yaramu nit ki du tekki moom ku dese la wala ku ñàkkam xel la ba tax ñeen ñenn ci jigéen ñi jàpp na ne ñoom bu sinab der ñuulee rek ñoom bokkuñu ci nit ñi wala bala ñuy dëgg bala ñuy gën a bokk ci nit ñi digg dëgg dëgg dañuy fi siinu der euh, am leen na ci def loolu moo xam moo tax di wax jigéen bu dee xeesal du baax te it bu dee tangal du baax moo waxoon ne jigéen ak colam eh, ñetti sart la wala am na ci ñetti sart boo xam ne du sol lu xat day sol yaatu du sol lu yaraax itam day sol lu bu sol lu gàtt itam na sol lu gudd kon loolu bokk na ci colu jigéen digg dëgg gi nga xam ne moom la ñu gën a taamu moo xam ne jigéen euh, bu dee xeesal du baax te it bu dee dangal du baax mooy bu dee sol yëre yu xat nga xam ne yëre yu xat waru ko jigéen dafa war saay bu ne mooy sol lu yaatu loo xam ne ay cëram du marqué yenn waxtu fekkee ne dafa nekk ci ëttu këram wala muy génn rawat na sax muy génn moo tax ma waxoon eh, jigéen bu dee xeesal du baax te it bu dee dangal du baax kon jigéen jigéen ju baax digg digg dëgg wër di soppi ab deram ne ko suñu boom bindee wut leneen lum ci soppi ba der ba di soppi ku déedéet eh, jigéen ju baax itam warut di sol col gu xat goo xam ne ay cëram day marqué waru koy sol sax ci biir këram waxuma la di ko sol di ko génne eh, waxoon naa itam colom nga yét warul yaraax danaa ko wax ndax du lu baax kon jigéen tam ak col gu yaraax waru ko jigéen sol col fat jot sëkk waaye du yaraax col gu yaraax col gu yaraax baaxul sax ci góor waxuma laag di baax ci jigéen kon jigéen ak colam wurte yaraax ci biir këram sàkkantuma ak muy génn waxoon naa itam ne jigéen bu dee rambaaj du baax rambaaj moom baaxut ndax laa yadxul jannata ad namaamo ab rambaaj du dugg aljana sëñ Tuubaa nee na bi maana du bokk ci ñiy jëkk dugg aljana bu dee dugg aljana tam fokk ñu xisaab ko xisaab metti ba ñuy dugg aljana ci ñu daawul ba pare moom mu door dugg ci ginnaaw biñ ko xisaabee xisaab bu méttee méttee métti kon loolu mooy ab rambaaj du dugg aljana loolu moo tax moo tax ma waxoon jigéen bu dee rambaaj bu baax eh, jigéen su jiwit jëwit bu baax jiwitam nekkul lu baax jiw daf daf na ko alquran daf na ko tere eh, xadis yunt bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tere na ko waaye seyxul xadim ridwanullahi alayhi akbar ridwanullahi baaxil xadim tere na ko waaye mbindi gaa yu baax yi yu bare bare ñëw tere eh, jiw nga xam ne jiw dafa nekk loo xam ne suñu borom daf ko nurule ak lekk meddum euh, euh, meddum nit ci alquran wax auzu billahi min ashaytani rajim wala yaqtab ba'dukum ba'dan la yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma axiihi mayitan fakarihtumuhu bu kenn ci yéen jëw moromu moromu nitam ndax kenn ci yéen bëgg na lekk meddum nitam moromam tonto mooy déedéet kenn ci ñun bëggu kon loolu euh, jiw baaxut waxoon na wa xiibatul muslim aqbahu min aklika jifatil xamir noonu lanu seen xol xadim deman ba netti lanu wa xisatul marjum wal isnayni xasbuka zajiran bi xayri maynin ci wàllu jëw wax ne dafa masa am ku njaaloo dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko yow ki yàlla yónni man de alkuna mu ne lan moo tax nga alku mu ne ko dama njaaloo tama nekk ku sangewu ku sangewu mooy dafa njaaloo ta am soxna wala mu njaaloo te am borom kër kooku mooy ku sangewu bim ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wooyal nit ñi ñu jam la mooy wooyo ko woo ñu teg ci yow atteb sariya ginnaaw buñ koy nit ñu ñu raj mu ko sànni ko ba mu faatu yonent bi sallallahu alayhi wa di dem am ñaar ñaari gaa yoo xam ne danoo topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa di jëw waa ji nga xam ne moo moo moo njaaloo bana teg ci moom atteeb sariya ba mu faatu yonent di dem xata ataw jifatal xamir fa waqab وقال يا زاني كل سي فعلف إني رأيت يجر ثيابه في الجنان فابتدى شخصا bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waajooju wooye nit ñi ñoo jam la ginnaaw ban ko wooyee ba mu jam ko ba mu faatu am ñaar yonent bi dem am ñaar ñu topp ci ginnaaw di jëw ki nga xam ne moo njaalu ba ñu faat ko yonent bi dem ba tolloog meddu mbaam mu taxaw ba ndikk mu ne yéen ñaar ñi lekk leen ci lii ndax lii ngeen di def moom la lekk lii ñoo yem wala sax mu gën a mu gën rëy lekk lii ndax ki nga xam ne day jëw mbokkum julitam moo gën a bon fu mooy lekk mbidum mbaam wa xibatul muslimi fi xawlil xajiir aqbahu min aklika jiifatal xamir yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo wax ne jëw sa mbokkum jullit moo gën a bon lekk meddum mbaam kon jëw lu day war la lu mata bàyyi xel la loolu moo tax ma wax ne jigéen bu dee rambaaj bu baax jigéen bu dee jëwit bu baax nettali itam nekkut lu baax nettali itam duunut lu baax danaa ko wax ndax lu baax Euh, sutura dafa am solo ba kenn ku ci nekk boo nekkee ak sa moroom lépp loo xam ne ne wax na la ko te mu doon loo xam ne secret la si diggante ak morom sa morom lu génn bañ koo nettali ndax nettali di jur rambaaj ndax rambaaj digg-digg mooy nga fekke wax génn nettali ko feneen te jublu ca ak yàq bu fekkee luy defaral nag moom baax na waaye nga jublu ko feneen ngir diw moo wax lii ku ko dégg ub sa gémmeñ wala nangam loolu mooy rambaaj te loolu li ko jur mooy nettali waaye fekkee loo digg rek nga euh, am ca ag dal ci noppi teesaw làmmeñ ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa xayran aw liyasmut bi ñu ko ci biir koo xam ne gëm ne yàlla gëm bi ci ba na wax aw yiw bu jeexee mu noppi loolu bu dee am rek rambaaj du am jiw du am nettali am kon loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu asaraawoon ci moom la ñu waxoon ci émission bii nga xam ne moo passé woon ñu waxoon ko ci ay biit te tënkoo ko rek jàll mu mel ni teqali na ko euh, kon loolu mooy mooy li ëpp solo ci jigéen jigéen euh, ku war a war a sàmm ci ak colinam ci moytandiku mu gàtt waaye moytandiku mu yaraax waaye moytandiku mu xat ku war a sàmm la itam ci aw yaramam ne ko suñ boom binde mu bañ koo soppi ndax walay si yu jigu sawadul akar na wax naa ko ci biir jigéen bu dee xeesal du baax waaye nag bu dee boo dee wuti ba fi ku weex bu dee ku xees bàyyi ko ndax ku ñuul ko sax moo gën a baax ma wax ne ma ci jul mooy ka xeesal waaye du caagen ki xeesal suñ boom xeesal ko ci bindam kooka taxunoo wax ah, bu dee ku ñuul ko sax mu gën a baax ñu ci jublu mooy ki nga xam ne na ko suñu boom ci ñuulay noonu la ko bàyyi waaye suñu boom ko pare ci ñuul mu soppi jëmmam xeesal loolu moo tax ñu wax ne bu dee wuti ba fi ku weex bu dee ko xees bàyyi ko ndax ku ñuul ko moo a baax xam ne dinañ fi nañ ci agsi ci sara bi ah, kon na ci jikko jigéen bokk na ci itam moo fexey mu fexe doon ku maandu ku sàmm ci ay waxam sàmm ci ay jëfam sàmm ci ay melokaanam yooyu yëpp insha Allah taala des na ci agsi ci ci jataay yii di ñëw waaye daal lii mooy lii leen na ci jataay bi nga xam ne jàlloon na eh, bii passé te ñu junjoon ca bayit yu te jaar ci rek noonu jàll ko leeral na ko loolu moo nekkoon jataay boobu kon xam na jataayu tey bii Euh, dañuy taxawlu fii insha allah taala ba beneen jëmmi jamono di ñaan suñu borom subhanahu defal nu ak digg defal nu ak topp def nu ay digg diggi ay jullit ñu bokk ñi gën a mën a roy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waaye bokk ci ñi gën a man a topp jàngaleem Seexul Xadim ridwanullahi alayhi kon foofu lañu taxaw lu saa Allah ta'ala ci sunu jataayu tey ba beneen bii di ñëw ñu continuer ci woy yi nga xam ne ñoo ngi ko sarxoon ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ñeenti mbir yi nga xam ne des na ci takk jigéen te ba ci gën nag mooy borom diine insha Allah ta'ala des na ci gën a yaatal bu baax ñaan suñu defoon na tawfiq zahiran wa batinan ci bar Seexul Xadiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh lil Mustafa xayri xalqi laahi mansilatun law wujjihat nahwa kullul wara xaaru raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru